suñ ma sëñ bi neen mi ngi sant bu baax si jàng pëseeku bi nee na jàng bi defe nga ko ni ko sëriñ bi bindee kon nag ñu ngi ñaan yàlla gën leen a dëgëral ñoom sëñ Njóogu Mbay fi jaar ba si sëñ Xaadim Géey sëñ bi mi ngi ñaan bu baax yàlla mottali leen seen yéene xasida yi nag daa benn naar boo xam ni daa ñëwoon si dindoo ji bu ko seefu lool sax daan def day toog si penc mi rek bu fa dara jaaree def fa mu baale ko defal ko. ba mu set. ba mu set. bis nag ñuy ñuy jàng xasida. bis nag ñuy jàng xasida. di kuréel. di ñu ni ko nga ñëw dugg si kuréel gi. ñu ni moom xolam dafa tooy. nettali na ci jamono yu yàgg. nettali yu yàgg. daa am ku doon yoo xam ne dañ doon tàgg yonent jàng wax yoo xam ne doon si tàgg yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ñuy jàng ba mu yàgg. ñuy jàng ba mu yàgg. am ci kenn koo xam ni. am ci kenn koo xam ni. tagg yi dugg ko. tagg yi dugg ko. ci ci ci biir tagg yi mu jaare ci faatu. ci biir tagg yi mu jaare ci muy nettali wax muy nettali muy wax jooju. muy nettali waaye ñëwal rek. ñu ko waaye ñëwal rek. mu ñëwee. ñi jàng xasida mimi ga tàmbalee ci alxalbu min niya fi zal yawmi qad salima min kulli rayni wa bir rahmani qad alima ñi jàng ba agsi ci aslamtu kulliya ñi jàng ba agsi aslamtu kulliya min baaxin li ahmadina min baaxin li ahmadina nuru alladi aana awyaati kama xaduna nuru alladi aana awyaati aw xadima awyaati kaman xaduma awyaati kaman xaduma mu daal di onk onk bu kawe. mu daal onk onk bu kawe. daal faatu moom naar bi. daal faatu moom naar bi. kon xasida yi. kon xasida yi. sëriñ bi. sëriñ bi. nañu si lépp. fàggul nañu si lépp. te wax nañu ne. te wax nañu ne. yusulu xatti man ahaba lil ilah bi xasida yi day àggale. nit ki si yàlla. si lu dul muy weddi dugg xalwa te day dàqal nit ki mboolem yeddaange yëpp kon nañ ko gën a fonk bu baax te gën a góorgóorlu bu baax eh, farlu ci liggéeyu Serigne Touba bi. farlu ci liggéeyu daan na wax ni. daan ñëw jox ma sa bopp. ku ñëw jox ma sa bopp. yaatalal naa naa la gaal gi. foppam di tee tee tee mooy caabi ji mooy caabi ji loo gisul sa gaal ga loo gisul sa gaal ga bu ëllëgee bu ëllëgee bul ma sikk bul ma sikk na nga sikk sa bopp na nga sikk sa bopp daan la wax ni tamit daan la wax ni tamit képp ku aju ci yéen képp ku aju ci yéen na ngeen ko digal na ngeen ko digal na ngeen ko wax li may digle na ngeen ko wax li may digle ak li may tere ak li may tere ma boole leen yóbbu ma boole leen yóbbu ku ko deful ku ko si deful. yaag say nit. yaag say nit. bu ngeen jàppantee téere baat. bu ngeen jàppantee téere baat. sama yoon nekk ci sama yoon nekk ci. kon nag. kon nag. nañu defaroo. nañu defaroo. nga xam ne sëriñ bi. bind na boppam wax na. bind na lu nëx. nee na kon nag. kon nag. sëriñ bi. ñu bokk yow si sëriñ bi. ñu fexe ba defal. nañu fexe a bokk si ñi nga xamante ni. nga xam ne dañ naan dégg nañ rek. dañ naan dégg nañu rek. te duñ ko jëfe. te duñ ko jëfe. nañ li ñu sëriñ bi di digal. nañ fexe ba ñu sëriñ bi di digal. ñu ñu sax sax ja. yeesal suñu jaayante ci ci sëriñ Touba. waxtu wu ne. waxtu wu ne. gis leen luñ def. bu ñu gis leen lu ñu def. nañ ci nañ nañ ciy nekk rek. nañ ciy nekk rek. te te te xeeb suñu mboolem jëf yëpp. te xeeb suñu mboolem jëf yëpp. te mi ngi ñuy te fa leen jëm. te fa bi. kon bi. dund gii. dund gii. ba ci bis yi ñuy def. ba ci bis bi baax ñuy def yëpp. nañ ko def wàccaay. nañ ko def wàccaay. mu jëm ëllëg. mu jëm ëllëg. bu ko defee. bu ko defee. bépp yóbbul buñ ci wut rek. bépp yóbbul buñ ci wut rek. ñu xeeb ko. ñu xeeb ko. tey gën a gën a ànd. tey gën a ànd. doon benn. doon benn. Eh, yéenente jàmm. yéenente di bëgg lu baax. di bëgg lu di bañ lu bon. di bañ lu bon. kenn ne li nga bëggal sa bopp. kenn ne li nga bëggal sa bopp. nga ko sa morom. nga bëggal ko sa morom. Cheikh Ibrahima kat képp kuy di gis ci moom safaan. di gis ci moom safaan. na nga xam ni yow baaxagul. na nga xam ni yow baaxagul. kon kon nag. li ñuy yéene suñu bopp. li ñuy yéene suñu bopp. nañ ko nañ ko yéene mbooleem ñëpp. nañ ko yéene mbooleem ñëpp. rafet njort ci suñu bopp. te rafet njort suñu bopp. rafet njort ci mbooloom jullit yëpp. rafet njort ci mbooloom jullit wax na ni ko neexoon. wax na ni bu ko neexoon. mu mu jubal ñëpp. moom la soob. waaye moom la soob. ñii jaar yoon. ñii jaar yoon. ñii jaar ci yoon bi. ñii jaar ci yoon bi. kon kenn ku ne. kon kenn ku ne. sa njubug bopp na nga fexe mu doy la. sa njubug bopp na nga fexe mu doy la. nekk ca yoon wa rek. nekk sa yoon ba rek. tey góorgóorlu. tey góorgóorlu. képp ku ku ngeen gis mu niru nekkul ca yoon wa. képp ku gis mu niru nekkul sa yoon ba. tax ngeen jàpp ni yéen a ko gën. mun tax ñu jàpp ñoo ko gën. wala ngeen koy yedd. wala ñu koy yedd. ñun xamale wuñu suñu bopp dara xamale wuñu suñu bopp dara xamuñu ba xam jëf ja nangu na wala nanguwul xamuñu ba xam jëf ja nangu na wala nanguwul nañ ko sellal rek kon nañ ko sellal rek te yéeneente jàmm te yéeneente jàmm bëggante bëggante li li ñu bëggal suñu bopp li ñu bëggal suñu bopp ñu bëggal ko ñëpp ñu bëggal ko ñëpp noonu noonu mooy doxinu murit mooy doxinu ab murit mooy nekk ca yoon wa rek mooy nekk sa yoon ba bañu léegi bañu léegi sëriñ bi daan wax ni sëriñ bi daan wax ni ku di dem ku jug di dem ni madam ma topp ma dem ni ku ma topp ma dem ku ma toppul ma dem ku ma ma dem boo geesoo seen mbooloo sa ginnaaw boo geesoo seen mbooloo sa ginnaaw lu waay yor lu waay yor attan koo joxe ngir yàlla attan koo joxe ngir yàlla bu xoolee bu xoolee gis ku ko attan na joxe ngir yàlla gis ku ko attan na joxe ngir yàlla lu waay yor te attan na koo joxe ngir yàlla lu waay yor te attan na joxe ngir yàlla doon wër adduna ba mu daj bu doon wër adduna ba mu daj gis ku ko attan na joxe ngir yàlla du gis ku ko attan na jox ngir yàlla kon nag nañ tënku ci jikko yooyu nañ tënku ci jikko yooyu jox suñu lépp Serigne Touba jox suñu lépp Serigne Touba wax ni daan wax ni ku ma jox sa lépp ku ma jox sa lépp danaa la ko téyel dinaa la defaral la ko defaral la ko jox sa lenn it ku jox sa lenn it la nga ma jox la nga ma jox danaa la ko defaral danaa la ko defaral la la la des la ca des ma bàyyee la ko. ma bàyyee la ko. kon nañ fas yéene jox Serigne Touba lépp. kon nañ fas jox Serigne Touba lépp. muy defar tey ak muy defar tey mu bëgg. te nekkal ci li mu bëgg. loolu moom moo jiitu ci lépp. loolu moo jiitu ci lépp. ñu ngi ñaan. ñu ngi ñaan. Serigne bi boole ñu nangul. Serigne bi boole ñu nangul. def ñu ay dëgg-dëgg taalibe. def ñu ay suñu dara bañ koo génn. suñu dara bañ